aram ndaw si loo nekk namu naa la de baal ma depuis sànq maa ngi lay bëgg a vocal waaye sama yaay moo fi nekkoon léegi laa dugg sama néeg xaaral ma ñëw sumbeeku sax génnee sama vibreur bi bëgge tuut Birahim depuis corona bi ba mu commencé ñëwul suñu kër moo ngi Kaolack di xaar ñu ubbi transport yi ndax mu mën a ñëw damaa xaar ba sonn léegi moom su ñëwee baax na su ñëwul baax na na man daal maa ngi ci vibreur bi di ci bégal sama bopp tubaab daal moo saay saay te xam lu neex yow moom femme nga soxlawoo ko bàyyi rekk ñun célibataire yi ba keroog ñuy sëyi pour de bon bul ma jugé nag yaa ma gën a yàqu fuuf waaye yow doo ma nettali li nga def ak sa waaji ci samedi bi dama namm ay waxtaan yu yàqu ay waxtaanu saay-saay ay waxtaanu bandi waaw léegi nag maa ngi lay xaar yow rek laay déglu sa vocal